kon na ngeen dalal seen xel wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas da ngeen am ba doy xanaa ku bañ a sellal ci yéen waaye ku tegu siraatul mustaqim ci mbooloo mi danañu am ba doy la buñ demee danañu am bu ñu demee ñu andil leen na ngeen góorgóorlu rek fi ñuy dund ni jalaal la jalaal la nga am doomu de jalaal la nga bay tool bi yàqu jalaal la nga feebar amu ordonnance jalaal la nga liggéey ñu dàq la jalaal la nga am jëkkër mu fase la jalaal la nga am jabar euh, mu daw la jalaal la nga am sëriñ mu jox la gannaaw jalaal la jalaal dafa metti ci nit kese yenn jamono yàlla teg la jalaal déglu la da ngay caalit wala da ngay omoto boo gëmee yàlla téye na li ay fanu yàlla la mu àndi la jamaal jamaal jox la alal jox la ay doom jox la ay soxna jox la ay oto ngay baagante rek mu seet ndax dangay ngay damu di puuka réew wala da ngay sant yàlla la in shakartum la azidannakum bu jalaal dikkee caalitoo jamaal dikk fuuyoo yàlla jox la kamaal yàlla yàlla may kamaal kamaal nag bu la ko yàlla may foog ngay kenn ci ñeenti tur yi raniyu doon boroom am am wala kabiru nga yàgg fi lool ci ay fan walla ngay alin di borom xam-xam wala malik ngay buur ñeent yi mooy àddina yow doowoo buur doowoo borom xam-xam doowoo borom alal guddoo fan loo doon danga ñëw rek téye àddina ñeneen di fees kon muñ leen ku ci nekk ci jalaal bul caalit ku ci nekk ci jamaal buy fuuy aynul kamal mi ngi ñëw ñetti na ngeen ci bàyyi xel xisaabun ñetti bàyyi na ngeen ci bàyyi xel xisaabun azaabun iqaabun addunya xalaaluha xisaabun wa xaraamuha azaabun wa shubhatuha iqaabun ñetti rek moo fi nekk àddina li fi lew yépp xisaabun dañ la ciy ragal foo ko jëlee ku la ko jox noo ko amee danga doon lekk bàyyi sa dëkkandoo bi sa doom bi feebaroon nga tere ko dem jox ko sa jongo ma jële hmm? nga téye sa bopp ci kii dem jox sa bopp kël nga fasante nit kóllëre ba mu wóolu la nga jàmb ko dem defi kër li leewu àddina yépp ci saabun la dañ la ci isaab ana kan la yàlla di hisaab nga mun a luppe bu mbaaxam ñëwul amul wa xaraamuha li xaraam ci àddina nag azaabul mbugal la ay sàngara ay góor jigéen ay wor ay wuruj fen karabaane yépp azaabul mbugal la ñetteel mooy li lënt baax na baaxul nga ne carax ca biir lew ne lewul nga def ko ah bu ma ko defee ma wax astaghfirullah bu ma ko defee ma saraxe loolu iqaabun njatamal la kon lan moo fi nekkati xisaabun réglé azaabun mbugal iqaabun njatamal kon nañu góorgóorlu bu baax a baax maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp yàlla na yàlla fay yàlla yàlla bu yàlla tas yi pàkk bii bés na dikk foo toll nga gis étage yi ci kaw yàlla nangu na loolu mbindeef mënu ci dara ma fekkee ak ma wute moo ci yem sooro yi li fiy jóg ci ay sooro bëri na yëpp jàkka lay doon bii jumaa lay doon incha allah da ngeen ci julli la tatal xulan na da ngeen dugg néeg bi jaamu ci yàlla ngeen ànd ak xel bu dal bu kerogee yal na yàlla fay leen yaa rabbi la ngeen di ñaan yëpp dégg naa ko sëñ bi yàlla na fi yàgg sëñ bi déedéet sëñ bi xas ngeen xam yoonam fi mu jëm déedéet taalif na waare na jàngale na tukki na kii daj na lu nekk kii daj na lu nekk xam ngeen fi ma jëm ki ma leen bàyyil ñi ma leen bàyyil man bàyyiwu noonu ma toll foofu kon maslaa moo des rek waaye lépp mot na bu ko yàlla defee tey baax na bu ko defee suba baax na li Cheikh Abdul Qadir Jilaani waxoon liqaawul xabib bil xabib yow nga ne bëgg nga yàlla te bëggoo dajak moom loolu mënta nekk déedéet liqaawul xabib bil xabib soppe bu nar a xaritam la maa ngi yaakaar bés may dajek borom bi bu ma waafee ci kanamam alhamdulilah mun na ma xoolee ba ci Seydina Muhammad seet seen mbëggeel ci man jéggal ma jéggalaale leen euh, alhamdulilahi rabbil alamin dégg ngeen ay coow yu nekk bu kenn xeex ci yéen bu kenn xuloo ci yéen ngir sama jëmm ju déedéet bu fekkee man sama loraanga mooy tax diina am njëriñ man accepté naa ko ci la bokk baay bokk ci la bokk lépp lu may daj man te diina bee tax baax na Samori Touré dañ ko bëggoon a rey mënuñ ko rey dañoo tàngal liquide sotti ko ko ci la dee te kii cheikh la woon ci tariqa Cheikh Abdou Qadir Jilani li ñu teg kooku mosuñ ma ko teg Omarul Muxtaar ca Libi buum lañ jël def ci baatam taxawal ko ci kaw tabrier jëñax tabrier bi mu daanu baatam des ci buum bi ci digg dëkkam ngir lislaam ngir lislaam xayrul xadim ñaata at mi ngi ci géej gi 1895 ba 1902 mu ñëw ñu yóbbu ko gànnaar ba 1907 mu ñëw ñu yóbbu ko ci cayeen ba 1912 ñu àndi ko njaaram bi vingt 1927 sëñ Touba fan la noppaloo waaye tey bool yi gën a niin poos yi gën a fees Touba la nekk Alpha Yaya Diallo maam la ci man kenn ci ay baayam mooy Cerno Abdul Karim Diallo moo joxoon wird tijaan ya ca ŋawle ca weti Podor mu jox ko Alpha Mayoro Wele moo ko jox Cheikh Amadou Fouti Tall mu jox ko Alpha Mayoro Wele mu jox ko Alhaji Malick Sy doomam na moo di Ibrahim moo jox wirdu Tijaan maam Alaaji Abdoulaye Niass mu tasaare ko penkook sow te kii dañ ko takkoon ci gëléem toj ko ci Nouadhibou ñu naan ko Cap Blanc léegi ñu naan ko démb ñu ko danoon Port-Étienne Port-Étienne léegi ñu naan ko Nouadhibou ci 1912 dañ ko yeew ci gëléem tas ko est-ce que loolu dal na ma man déedéet Seydina Omar dañ ko rey ci biir jàkka Ousmane dañ ko rey deretam tuur ci kaw kaamilam soxnaam daal di yuuxu ñu dagg ay baaraanam lépp tuuru ci kaw borom kër Aliou noonu lañ ko reyee alxasan alxuseyn di watu guddi na sa nopp mucc mënut a nekk waaye naa yegg yàlla kenn du ma baatal kenn du ma xas kenn du ma ŋàññ déedéet luñ ma teg bu kenn xuloo bu kenn ŋàññ suñu maam daara fii ci Kaolack nee na li ma déggul mooy sukk naa am doom kàddu gu bon bu nekk dégg naa ko waaye xam ngeen ki may wax kenn rek la foo dem ci àddina bi ñu ne ci taalibe bu topp sénégalais la moom rek la ay million ngi million ngi doomi adama ñoo ko topp kooku bu demee bay naan li mu déggul ci àddina mooy sukk na am doom kon ana keneen moo tax ba ñu caricaturé xaadimu rasul ci at yële daaw wala daaw jéeg def ay dessin ne sëñ Tuuba la man waxuma ci dara lu tax comme mooy xaadimu rasul foog loolu dal ko li li dal yonent bu ko dal woon man damay sikk sàkk waaye li dal yonent yi dal na ko kon dëgg la xaadimu rasuul la baana li kulli man ko wilaaya yàggale leen kaw ni li rabbil alamin aaya moom sëñ Tuuba moo ne képp ku am toqantal ci xam yàlla xam nga ne man kéemaan laa ci kéemaanu yàlla dégg ngeen ba ma fi waxee Saint-Valentin dama koy leeralaat man sama sago kenn kenn du dugg safara ñëpp dañuy jéggi seeraat dugg aljana lu réer ci juddu feeñ ci jikko man julli bi laa doon waxal waxuma ak jullikat yi jullikat ak julli du benn walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabia millatahum yahud du jikk du nit du xeet jikko la nasaraan du xeet jikko la xayril maxdubi alayhim walla daalina mooy ñooñu la ak lu ñu wax lu réer ci juddu feeñ ci jikko loo xamul cosaanam seetal doxinam labbe yi seen kilifa yi ay pap ñépp ay romain lañ doon doon ki génn doon beneen kër mooy Jean Paul II kooku polonais la seen capitale di Varsovie li ma lu set wecc lay wax bind naa ci moom Varsovie mooy seen capital polonais la ki ñëw ci gannaaw mooy Benoît XVI moom allemand la seen capitale mooy Berlin ki ñëw seen gannaaw mooy kii Francis wala François moom argentin la am na lu mu tàmbaloon di def man maa ko taxawal man maa tollu saa ñu taxawal ko mu ne képp ku demati Europe bu nangoo doon catholique nañ ko mooy séjour moodu moodu yëpp bëgg a dugg ci catholique ngir ñu am séjour boo amee séjour salaire boobu nga dee ñu paasal la ñoo suul ci la bul yem ci ñu suul la saañ de nañ la suul ci kaaba gi doo mucc ngir kayitu àddina ngay bàyyi sa diine waaye gisa bàyyi nañ loolu combat bi du Sénégal combat bi àddina la du Sénégal moo tax may résisté man àddina yi Muhammad sallallahu la wa sallam am na pape bi ñu tuddee Benoît XVI dafa démissionné parce que ñu ngi ci église yi dañuy jabaroo xale yi dañuy tëdd ak xale yi mu tere leen mënu ci dara mu démissionné moom Benoît XVI kan moo njëkk a démissionné ñi ci des ñett dañoo dee fekk ay pape lañu waaye ki njëkk dee ki njëkk a mooy Grégoire douze Grégoire douze moo njëkk a démissionné ca mille quatre cent quinze ñu teg ci juróom-ñaar fukk ak juróom 77 ans ñu soo gis Amérique li yàgg la Amérique ki ko njëkk a gis ci tubaab yi mooy Christophe Colomb mu ngi départ dëkk bu ñu de Palouse ci Espagne ci le 3 août 1492 mu yegg fi ñuy tuddee tey San Salvador di capitale El Salvador ci le 12 octobre 1492 li mooy wax dama ko maîtriser. du benn kayit bu ma yor jëleen appareil ngeen vérifié léegi lii dama ko jàng dama ko dund pap bi maa ngi toog a moom 83 netteel naa leen ko ci laa ko laajee ma ne ko est nit ku ñuul dana mës a nekk pap li ma wax duma ko mos a nettali ma mag ki àndoon mooy cardinal Gante nit ku ñuul la bu pap bi bu pap bi doon génn mooy jiitu waaye dafa ne bu ma la njëkkoon a gis fekk nekkuma catholique du ma nekk catholique damay topp lislaam ne diina gi li ma ci gisoon ak li nekk du benn allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah dafa ne bu dee buñ ko rob buñ ko rob Saint-Siège mooy ca nañ ko delloo Rio moo tax ba mu dee dañ ko andi fii benn dëgg bi dew ma ca booba nekk na nitu diina démb nitu diina laa woon waaye dama doon jàng tey nag dañuy jàpp diina ci man bu ma demee jaale ji ñu ne sëñ bi dafa jaale si kalifay kër catholique ñu bàkkaat fekk kóllëre moo ma doon yóbbu rek président bi keroog moo ko teewee mooy boni yaay ki ñëwoon fii ci vote yi foog naa demagul wala dem na boni yaay ñibbi na waaw mi ngi woon fan yi keroog dëj bi teewee na ko boobu soldaar yu ndaw yi dañu leen di tere ñu takk jabar soldaar yu ndaw yi dañu leen di tere ñu takk jabar ndax bu guerre amee officier yu ndaw yi ñooy gën a jeex officier yu mag yi en général dañuy dem dañuy joxe ay directive soldaar yu ndaw yi bu ñu deeyee kon jigéen ñi amul jëkkër dafay bëri jirim yi dañuy bëri gisoo léegi Irak ñetti million ngi jigéen yi seen jëkkër de trois millions ay veuve Irak ba démb maa ngi koy laajte pour ma wax leen lu wóor ay jirim juróomi million yi jirim ñoo am Irak kooku chargé la ci réew cinq millions orphelins trois millions veuves lii dafa bëri ñett million ngi jigéen yoo xam ne ñëpp seen jëkkër dee ci guerre bi juróomi million ay jirim ñëpp seen bàyyi dee ci guerre bi ba mu nekk ci biir guerre ñu ne soldats yu ndaw yi bu ñu tàkk ngir bu ñu dee dëkk bi dafay am ay jirim ay veuve ki ñu tuddee Saint Valentin labbe yépp sabadoor yu weex lañ doon sol takk seen ndigg ak lu ñuul wala lu xonq kon boo boo solee lu weex génn ci lëndëm dañ lay xam ah moom moo njëkk a sol rouge noir ngir bu génne guddi ñu bañ ko xam kii kàccoor la te dafa doon jiiteegle bu waaree ba waaree ba ñoom ñu sëriñ la sëriñ bëccëg waxambaane guddi xam ngeen li may wax waaye hmm? bu guddee rek mu daal di sol mu daal di déguisé wu génn fleur la doon wax ak soxna si fleur dafay wax am na fleur bu ñu dee belle de jour mooy tey yëpp baax na belle de jour am na am na fleur bu ñu dee maigrette am na fleur bu ñu dee ah école ah, ya am na bu ñu dee flamboyant dafa doon taxaw ci ginnaaw couleur bu ko sànni ndaw si dina xam lan mooy siiñam ak fan la nekk lii moo andi fleur Saint-Valentin est-ce que lii baax na lu sosu ci njaalo ndeke mi nga ànd a soxna si ba mu ëmb mu ragal bu lii feeñee église dana am gàcce ci la defee benn waare mu ne soldaar yi sonn nañu ci soxla jigéen bés sàngam na ñépp génn ci camp bi kenn ku ne kuy sa coowal na nga fanaane foofu daggal na lu bon bu ko ñépp doon def du tax mu baax lu baax bu ko ñépp bàyyi yoon du tax mu bon keroog ba ñu wàccee ci dëkk bi ñépp ëmb keroog mbokk yi est-ce que lii baax na xeeti Muhammad di di def lii ba koy feetu di ko teg ci ay rajo di ko teg ci ay télé ëllëg boo dajee Seydina Muhammad yow kott sa bàmmeel foo jëm lii ba ma ko waxee ah mel ni cin bi dafa bax ku dulus bi réer sëñ bi nangam sëñ bi nangam yëpp encaissé naa ko waaye dama ci kontaan ñoom dañ ma dimbale ñu médiatiser ko narata na jàll sa waaye ñoom ma dimbale ñu jàll ñëpp dégg nañ ko man loolu laa ci bëggoon bu yowmal qiyaamate ma ne Mouhamed waxoon na balligu anni walaw aaya Mouhamed waxoon na jàll na man du ma yàkkamti am na ku nekkoon fii ci Hollande kooku ni ma sonne ci moom dafa ëpp sax tubaab la député la woon mi ngi nekkoon seen assemblée dafay bind téere di saaga lislaam di xas rek boroom xam-xam bu rëy la waaye xam-xamam yépp saaga yonante bi saaga alquran ñu ne kii na nañ ko ñaanal waay ma ne déedéet buñ ko ñaanal buñ ko ñaanal mu yàqu nañ ko ñaanal mu defaru li mu gis bay saaga lislaam na gis lu ko gën bay bay defar lislaam ñu ko tuddee yuraan fay waxuma fay de tubaab la seen capital mooy Amsterdam ak Rotterdam waaye ci mois de octobre ci la tuubee tuub na député la benn mi ngi binaal ay téere li mu waxoon yépp mu diingataat boppam sànni ko ne rek lislaam dañ ko xamuloon ne boo xeeñte lat ko lañ ne amul xet yaa sax mu ne moom dafa sojoon <laughs> ah, tuub na ci mois d' octobre bi la boo gisee nel nel bi mu yore ci nel bi dangay ngay foog ne tali Dakar bi la alhamdulilah jaa ngeen jëf ñëpp ree nañ kontaan bu ëllëgee bu ngeen di déglu lii dafa leen di giifal ndax euh, yàgg fi mun na am waaye des fi ba dàkk munta amati yal na yàlla fay leen kon yooyu lii laa bëggoon a leeral na ngeen xam bu leen ci xeex bu leen ci xuloo nañu saaga ndey saaga baay saa su nekk dafa am benn journaliste buy ñëw wala benn nit man de waxoon naa la nangam bind naa nangam ci journal bi xasoon naa sa doom xasoon naa sa jabar xasoon naa sa nangam waaye dañ ma dañ ma yebal na naa bind de ma ne ndax fay nañ la ma ne sëñ bi fay nañ ma kii mbaa bëri na tuuti waaw bëri na tuuti sa ceeb tooy na borom daal di rus ne tekk bu ëllëgee seeta fu mu gën a naqadare nga daggat foofu waaw comme si yow mooy baaxal sa mbir defaatal rek defaatal rek ah, man dama dikk pour musal si jaam yi dikkuma ngir toroxal jaam yi gisoo fan yëpp maa ngi naan nag ma seetal euh, ndax danañ gis katolik ma boole ko ci puus-puus yi ah am na waaw man seetuma diinay nit yonent yàlla la Muhammad la yàlla yebaloon te yàlla du ko ne rahmatan la alamin même jën yi ci géej gi yow Muhammad lañ koy laaj même melantaan yi daañ la ko laaj même weñ yi di naar daañ la ko laaj kon balaa ñuy foog ne kii euh, jullit la du defal catholique yi déedéet lii gaare ci ay siis lan moo ma ko def loo dama doon dem Kaolack ñëw bay dugg ma fekk bunt Puy 12 lépp mi ngi fees ci ay puus-puus maa ngi jéggalu tudd gi may tudd du xeeb leen waaye pour mu leer jotaay bi dafa am ñu bëri duñu ay wolof waaw ay lafañ maa ngi jéggalu te yàlla tax ma fekk puus-puus yëpp ay lafañ toog ci ma ne leen baa jàmm la ñu ne dañuy teertu monseigneur Théodore Adrien Sarr mi ngi may dégg mi ngi ni Dakar mu ne dafa dem ma ne lu tax ñu ne dafa demoon Vatican ñu def ko cardinal mooy ñëw ñu koy teeru man ne waaye yéen gën a leen dëgër bopp catholique bu ñuy yégal garaatam lu ci jullit di ñu ne suñu puus-puus yëpp moo ko man damaa dem bu doon kuy gàmm joxe fukki puus-puus kuy ziyaare joxe fukki puus-puus kuy màggal joxe fukki puus-puus kuy cant joxe fukk est-ce que la fañ dana amati hmm? waaw ñu ngi jàng tàllal leen loxo yi faatiha salaatu faatiha pu pu defal luy jëriñ doomi aadama lii rek la ah kon puus-puus yi danaa wax ñu ma leen tuddee léegi gisante bi rek doy na danaa wax si ñun la ma leen tuddee conférence bi dootul ko ma cant yàlla rek moo ñu fi dajal waaye li ngeen dégg waaw mooy yoon bi rek de ñaareel bi fi may tegee mooy fan yi yéen a ngi dégg ne sëñ bi dafa contre politiciens yi dafa seexlu politiciens yi seen alal déedéet ma kenn man duma seexlu nit déedéet gouvernement bi yépp samay doom samay sët samay jarbaat ah samay doom bàjjen samay doomi nijaay samay sët samay am di jàmm ñoo ci ne waaye mbokk yi léegi Macky sal bu dikkee tey laa koy soog a tudd ci kaw bañu ma ko de yaa am sama wóllëre la woon bu ñëwoon ci man bu kontaanee daf ma ne banam góor ko sama càmmeñ bés bu tiite mu ne ceerno mi ari de sama sëriñ ñëw na nu ma koy bañe yaayam bi tëdd ci bàmmeel laa gis man gisuma ko moom bu Macky Sall dikkee jox ma enveloppe ne dama bëgg ma am deuxième mandat mooy bu ma wàcc kooku génn Idrissa dugg jox ma enveloppe dama bëgg ma wàcc ma yëg nga téye kooku war nga kenn nitu yàlla du wor nitu yàlla du wuruj nitu yàlla du fumiste nitu yàlla du ràmbaaj nitu yàlla du karabaane bu ma nekkul nitu maa ngi bëgg a bokk ci ñoom sonko dikk jox la nga ne ko fatul naa la fatuloo ko fenn waaw kooku génn ma dikk daal dikk toj naa réew waaw waaw waaw waaw leen ma tuute waaw ma dikk daal dikk wax baatam boobu dootuma ko wax comme yenn jigéen ah dootuma ko wax de comme kontaan ngeen loolu laa ci bëggoon parce que tension bi yéeg na dem ngeen ba xamatu leen fi ngeen toll waa léegi ma di ko daal di dugg yëkkati am la jox la nga jël kooku ne defal naa la xalwa ban xalwa keneen ki dikk nu mu tudd wala isa sal moom tam jox la jox la dara nga ne ko ci ñetteelu kees bi laa lay dugal yow waaw dem naa ci bàmmeelu diw ñaanal naa la fa gis naa sa tur yow yaay nangam wor nga wuruj nga karabaane nga naa nga man bugguma bokk ci ñooñu jëluma dërëmu kenn ci ñoom kenn ñëw sama dëkk ku ma téléphoné na maa ngi ñëw mën a jéggal ma fukki billet Makka yu ànd ak seen devise yàgg sa mbooloo ngeen aji mën a doy na aj naa fukki yoon li ma umra mënuma ko nettali doy na ma des ak yàlla comme ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa yóbbu leen seen sànqal ku la abal bët xoolal la fi ko neex bàyyi leen ma des ak sama yu naqadi yi waaye seexluwuma seexluwuma waaye bu doon ay homme d'état lañu danaa jëflante ak ñoom waaye ay homme politique lañu du nee ñu ngi gas poori Kaolack bi ah? balaa ñuy gas poori Kaolack bi nañ dundal Linjaan Linjaan mi ngi ni di réew mi yépp fii lañ doon wute boo romboon Linjaan da ngay foog ne Dakar Arena la wala Arena Dakar la Dakar Arena boo romboon Linjaan da ngay foog ne yaa ngi digg yaa ngi dikk bu yaa ngi digg boulevard Général de Gaulle ci dakaar allée du Centenaire wala yaa ngi Saint-Élysée ci France wala yaa ngi Crémelin ci Russie wala yaa ngi nekk Maison Blanche ci Amérique ah boo gisoon linjaan da ngay foog ne fii aljana la ngir lumière da ngay foog luuma bu tas la tey linjaan dafa mel ni cimetière ñaata ñoo ci dem Màkka ñaata ñoo ci am soxna li ñuy gasee port bu kaw la population dañoo xiif nañ leen defar li changé bu yeboo mu doon ay chinois weer bu nekk ñu changé ko nañu jënd gerte baykat yi ñu ne gerte gi dafa joxe cancer suñuy maam cancer ñu suñuy bàyyi cancer tubaab yi dañoo dem ba am sur euh, tournesol léegi nañu yàq suñu économie ba tey ñu topp leen lu ràkk loolu li xale yi naan nañu am xel nañu am xel naxaate yi moo ëpp man buñ dul nax population man duma mos a wax ci politique man duma politicien diingatuma kenn mais injustice moo baaxul barki démb seen kër yépp ay néegu napp nappal la tey ngay ta ngay tabax ay R plus 3 du benn du ñaar population bi di gën a dellu gànnaar sax linjaan mi ngi nii usine bu mot sëkk ay machine am nañ ko réparé nañ jënd ay machine yu bees def fi ay raffinerie def fi ay décortiquage Sine Saalum yépp liggéey Casamance yépp ñu ngi ci dëkk yi Fuuta yépp ñu ngi fi lan moo leen fi ànd teraanga bi nekkoon ci diwaan bi li ngay gasee jëlal réparer li waxuma ne gas bale baaxul de déedéet avancement laa bëgg mais li na këtt na jonn lu na këtt na jonn lañ koy faje yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla aar leen yàlla ba yàlla tas yi lii rek la li ñu naan dafa contre politicien contre ma kenn waaye injustice moo baaxul buñ defee lu baax ma ne lu baax la yokk leen buñ defee noonu ma ne baaxul ay gone ngeen bàyyi leen li def li jël leen li ngeen bàyyi la lii rek laa ci nomm waaye diingatuma xastewuma ñi jël seen alal jël nañ ko waaye ci mulku la ñuy yem waaye bi ñu am malakut wallahi képp ku jël alali doomi adama nax ko mun nga am mulku waaye doo am malakut tabaraka lazi bi di mulku subhaana lazi bi di malakutu mulku mooy mun nga am jàkka bu rafet waaye doo am wilaaya mukk mulku mun nga am ay jongoma yu taaru waaye doo am mala doo am wilaaya mukk mun nga am ay poulailler ay élevage ay maraîchage mun nga am ay 4 x ay 8 x waaye doo takk wilaaya mukk mun nga bëri la ay taalibe ay télé wër la ay kamera taalibe di yuuxu lépp mun nga ko am waaye mulku ci nga yem waaye wilaaya doo ko takk mukk est-ce que lii jar na ko ñëpp foog ne waliyu nga buñ dikk yomal xeer ñu demal taxaw cinquième round cinquième la waaw maa ngi nuyu ñëpp yal yàlla fay la léegi li fi nekk damay wax puus-puus yi ñu joxe ko rek am na lu ma leen bëgg a jox comme njëriñ